boo ko tënkee ci wolof mooy bu leen am yaakaar ci saay-saay yi ngeen xam ne ni ñoom ñoo leen indil ay tolof tolof pour ñoom ñu daal di euh, lijjanti seen tolof tolof duñ ko def kon nag képp ku leen bëgg a gëmloo ni que président Macky Sall dina amnistie Karim Wade ne leen ko Barthélémy Dias nee na wax jooju dëppawul ak dëgg képp ku leen bëgg tamit gëmloo ni ni que dina gracier wala dina amnistier maa ngi déglu di amnistier plus ou moins kii di Khalifa Sall tamit ne leen ko Barthélémy Dias lu mu wax euh, mooy wax jooju dëppul ak dëgg su leen waxee tamit que président Macky Sall dina def kenn lay kattanam pour que procès euh, caaxaan bu ñuy woowee mooy seen procès affaire Sweet Beauté euh, Macky Sall na ci def kenn kattanam pour que kii di Ousmane Sonko ñu mën ko setal tamit. na ngeen ko wax ni que Barthélémy Dias nee na wax jooju dëppawul ak dëgg kon nag lii di fulla lii di fayda lii di jom lii di jom ak gëm ëllëku Sénégal mooy ñu bokk ndey bokk bàyyi mën a doon benn say ci élection locale loolu mën a nekk tamit benn exemple pour ñu mën a gën a yombal lii di unité bu ñuy namm ci élection législative ci deux mille vingt-deux bi parce que nu nammee ñun amnistie mooy moo xam ci Karim moo xam ci Khalifa su suñu nammee non-lieu moo xam ci Barthélémy Diaz ci fusillade bi moo xam ci Ousmane Sonko ci waxu caaxaan yu ñu wax ci waxu affaire Sweet Beauté boobu daanaka foog ñu nekk benn am ndam ci élection député mën a am cohabitation parce que amnistie du président mooy amnistie assemblée nationale mooy voté loi pour amnistie te président Macky Sall may biralaat wax ji te man ak yéen xamante nañu man du ma waxantu président Macky Sall du fi amnistie kenn parce que xam na lu koy xaar président Macky Sall du fi joxe benn instruction pour ñu setal fi Barthélémy Diaz wala ñu setal fi Ousmane Sonko du ko fi def parce que dafa am lu ko mbir bi jaral kon nag yenn askan wi yenn jaare na ko amnistie ñu ngeen nam ma ñoom ñu bokk ci élection président yéen ñaa leen nawa def seen kenn kàttan ba justice bi seetal Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko lu ma naroon wax ci moom wax naa ko ba pare lu ma xalaat ci Ousmane Sonko wax naa ko ba pare te ñu ko jotuloon dégg tamit ma baaxe leen bi Sonko nit ko baax la d'abord jullit la man ci lu ma gis ak ci lu mu dégg nit ku bëgg Sénégal la lu ma waxoon ci Khalifa Sall moom laay wax ci Ousmane Sonko. moo tax moo xam yaayam moo xam ay soxnam moo xam ay doomam nañu am contenté ci seen doom seen jëkkër seen pap parce que Ousmane ku jara jàppale la te ku jara wóolu bu ci def may waxaat bi mooy la dernière fois may indi démenti man dama bëgg askanu Sénégal ñu jàppale ni man dama leen respecté te man du ma laam-laame du waxaale ñëpp ndox ma respecté bii mooy dernière fois bu may indi démenti maa ngi jéglu nag bu baax a baax ci askan wi wante yéen noogu leen nangu kuy fooye seen xel mu leen gis ay nit yu mel ni Barthélémy Dias jaar bu du fa boppam ma jox leen suma lépp teg ci nag fulla ak fayda jël suma bakkan bi teg ko ci xottu gerte ñu may bëgg dëkkaloo ko ma dëkkul ku ma respecté wul ma respecté suma bopp bii mooy dernière fois bu may indi démenti na ngeen xàmmee ak di ràññee baat bi waaw te nee naa leen saay bu may wax man Barthélémy Dias damay wax ngeen di gis suma kanam dama bëgg ngeen am ak seen xel te ngeen di dégg dàcc le 5 mars 2019 fii ci réew mi nit jël na suma baat di ko utiliser ñu génne élection présidentielle ñuy woote ay fitna mën na leen bu suma baat luñ ci namoon mooy jàpp ma rab ma ci kaso bi ñu dawaat ba le 8 octobre 2019 yéen ñëpp ngeen dégg fii le de octobre 2019 ngeen déggaat nit jëlaat ma baat di ma bëgg a dëkkaloo fu ma dëkkul ma defaat encore démenti te ma biralaat encore wax ji le 10 février 2021 dik la woon ñu jël baatu ku ilif jàngu bi ci senegal di ko imité pour nekk waaw monseigneur Théodore Adrien Sarr moo yëkkati kàddu yi te ñun ñi ñu xam ne ni que loolu dëppul ak dëgg ñu dem ba jël baatu maître Ciré Clédor lii di avocat wu Ousmane Sonko ne lii la wax ci Ousmane Sonko bii mooy dernière fois bu may indi démenti bépp sénégalais laa wax sa xel wala sa sa bopp xaw woyof ba ñu koy fooye ba nga bëgg a gëmloo ni que waa damaa dégg baatu Barthélémy Dias yow mii ne la ne la yàlla may xolu muñ ñuy jël suma baat di ko bëgg a utiliser lu ñu nam ma ci loolu mooy jaxase ma ak Ousmane Sonko yenn Sénégalais yi wax naa leen fan la Ousmane Sonko toll ci man te man dama koy assumer wax naa leen Ousmane Sonko maa ko bëggal suma bopp te amul kenn ku ma dëgg Sénégal may wax ci ay waxu ay caaxaanu ay xawma ay affaire ay suite bote jot boobu aw ko parce que man kenn du fooy suma xel. ëllëgu Sénégal moo ma ñor moo ma tax a jóg kon nag ay fake news ak xaw ay waxu ay caaxaan ay réseaux sociaux du ci dugg te fu may daanale ci wax bi dama ne benn violeur kese ket rek dong moo am Sénégal mooy kuy violer seen ak ak seen ay yelleef mooy kuy violer seen ëllëg daanaka di violer la constitution du Sénégal ak ku nga xam ne ni mooy violer les lois et les règlements de ce pays kooku c'est le seul violeur dans ce pays nee naa leen lu ma xalaat ci Ousmane Sonko ku ko mën a gëm nga gën ko ku ko mënul gëm na la yàlla may xolu muñ te ku ma dégg na ngeen jàppale Ousmane Sonko parce que ku jar jàppale la fa laa mën a yem ci wax ci bu ci des nag mbokk yi maa ngi ñaax ñëpp ñu bokk ndey bokk bàyyi fu ñu jëm ku bëgg a dem dem nañu ku bëggul dem dem nañu parce que Sénégal kenn moomu ko du lu kenn et je le je reviens à ce que j'ai dit il faut une unité et à ce titre J'invite tous les Sénégalais à faire preuve de patriotisme et de responsabilité. Il n'est pas, une fois de plus, l'heure de prêter le flanc ou d'être faible d'esprit. kon nag mbokk yi di gërëm ñëpp di sant ñëpp di jéglu tamit di jox tamit dig ndaje Ndakaaru di ngeen ñu gis di ci gox biir Dakar je le répète nous sommes candidats à la mairie de Dakar c'est notre responsabilité c'est notre choix Et avec le peuple de Dakar, nous allons redresser une fois de plus la barre. Je rappelle que Dakar n'est pas négocié. Dakar ne disparaîtra pas. Le maire de Dakar ne sera pas non plus nommé par décret présidentiel. Et à ce titre, nous tendons la main à toutes les forces vives de la nation, forces politiques, forces de la société civile, forces syndicales, pour mën a bokk ndey bokk bay may biiralaat wax ji mais ci insister waat foofu lay daanelee il faut une unité pour élection locale pour loolu mën a doon benn test pour élection législative loolu mooy tax ñu am cohabitation mën a imposer suñu amnistie ak mën a imposer suñu ay non-lieu ba ñëpp mën a bokk ndax tamit askanu Sénégal mën a tànn seen njiit di gërëm ñëpp di sant ñëpp jërë ngeen jëf.